African local la ñun ñoo ko moom. di ci soñ ñu Sénégal yëpp ñu consommé ko. moom tamit ndeysaan bu ma ko déggee léeg-léeg muy faram-fàcce ci wàllu tubaab damay xam ni reportage dafa am solo. Mhm. ndax dégg-dégg yi dañoo wute. Mhm. di nuyu Ndey Kumba. Mhm. sama jarbaat nga xam ni moom aussi. nee na bi muy dugg ci mbir mi booba xale yi jigéen yi ñëw nii booba mbir mi yombul de booba làmb diir na làmb tàng na mu takk ndigam rek kon bu toogee sama xel ci loolu lay nekk ma xam ne mhm. tamit li muy wax maîtriser na ko mhm. di la nuyu bu baax di nuyu réew mi yëpp mhm. di am contentement di nuyu président de la république ak premier ministre am di ndokkeel ñëpp di wax ni daal fii ñu daje tey di fi waxtaan dara indiwuñu fii lu dul di wax lu neex sénégalais yi. Mm-hmm. certes nag mënoo wax lu neex ñëpp. waaye boo saxee ci dëgg rek dina am ñu ànd ak yow. dëgg la kon maa ngi nuyu ñëpp den ziar bu baax a baax. macha allah laxat ñaa nee na Waly TV ñoo ko bloqué ku baal ñu laxat ñaa xam naa dañoo jum rek xam naa. loxo moom dañ ko bloqué woon neen tey suba. xam naa xam naa loxo réalisateur bi la Mara moo doon réaliser tey suba. Hmm. waaw. lu muy réaliser ba loxoom di dem ci Abdoulaye Ndiaye. non laxat ñaa ngeen laxat Ndiaye. ah laxat ñaa waaw day day commentaire nee na Waly TV dañ ko bloqué woon tey suba. laxat ñaa xam naa rek daa waxoon lépp moo tax ñu bloqué woon waaye ñu ngi koy tuubalaan ah. lépp de jarta wax na lépp rafet rek. na lépp rafet. waaw El Amin. waaw maa ngi nuyu bu baax a baax di la ziar. maa ngi lay fay bu baax a baax di la ziar bu baax di rafetlu liggéey bi di la remercier ci invitation bi. Mhm. di nuyu Père Pala. di ko bu baax a baax moom tamit di ko jox wàccuwaayam di nuyu Ndeye kumba Fall. moom tamit maa koy nuyu bu baax. léegi moom nag xaw naa ko nangu ci yow nag. waaw daa ma ko joxoon waaye léegi daa mel ni nangu naa ko ci yow de. waaw nangu <laughs> noonu la nuyu bu baax a baax sotti ci ak def ci la. waaw sotti ci ak def ci la. Mhm. donc di nuyu ñëpp ñuy seetaan ak équipe technique bi yëpp. macha allah. Mhm. nekk ma Fall maa ngi nuyu bu baax a baax di la ziyaara moom nag xam naa dina kaas boo nuyoo benn góor dama fan perpara ci solo bi. <laughs> solo bi waaw ak style bi. vraiment maa ngi koy. xam nga commerce mën na lu ne commerce dafa mën lu ne. Ah. mooy commerce moom bu doxee bu la wuy see rek. mais déet wax bu commerce ma. waaw dinañ ci ñëwaat. waaw ah, commerce su ma de waaw ni muy jëlee sañse bi. waaw macha allah. macha allah ah, père noonu la de. père tey da ngay tiitaru de. non il faut ma bajantu nag. ba dem ko mën a nga doxantu défilé fii tuuti ah mën naa ñàkk bu ko laajee rek ma def ko nay ko ma maa ngi lay béggee bu baax a baax di la ziare Rebeke eh, Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar nuyu sama équipe bu matin bi ah mhm. El Amine ni ngi ni forme équipe bu choc. Ah, mais kenn rek moo si manqué tey. muy <laughs> Samb muy Samb. Mhm. li mu tudd sax li eh, mu tudd MS Faye. MS Faye. MS Faye moom moo fi manqué ah di nuyu père Pa la. naa ko mhm. vraiment costume bi rafet la macha allah xam naa Lamine nag teranga bii mën a defal tey moom yàlla na gën a yokk rafet na. trop <laughs> kenn du ndigga jaa dégg la wax ah. na Lamine teraanga bi mu la defal moo tax ma leeral ko ne ko ndigga jaa la waaw mu mel ne da nga jaale si doxu Lamine Seck moo la ko defal ngay leeral ndig ah il faut ma leeral ko de ndigga jaa ca France ndigga jaa ca France kenn du moom voilà di nuyu ñëpp daal di xaar tamit ki nga xam ne mooy Moustapha Guèye le mhm. deuxième de Fass mhm. ndey Kumba yàgg nga ci làmb ñun ñëpp xanaa père pas la ñëpp yaa ngi ci jiitu pare jàng métier bi coow li bari na ci torop torop torop temps yi mais comme na ma wax rek xam nga làmb coow la mais lii nag dafa gën a indiwaat coow bi daf si dolliwaat mais bon man damay analyser rek. waaw ah, mais des fois nit ñi da ngay mais du ñu xam fu ñuy waxee. comprendre man li may wax toujours depuis bu ministre bi waxee lii ba léegi. bu mu recevoir acteur la lutte yi man d'accord naa si. Hmm. parce que su la joxee discipline bu bees su la joxee benn post bu bees. yoon la nga woo ñi nga xam ne si la ñu nekk. Mhm. nga woo ak nga woo leen ngay waxtaan. ngeen xool luy avancé la discipline boobu noonu. naam yàgg na si parce que ministre bi nekk lu bees ndax moo yore woon li nga xam ne moom mooy waa dakaar ak affaire yooyu drapeau chef de donc xam na lu leen làmb yàgg na si làmb. Mhm. li mu def ni woo acteurs yi waxtaan ak ñoom laaj leen loo xam ne dafay jëmale làmb kanam côté boobu d'accord naa mhm. li nga xam ne man d'accord ma si te loolu sama position bopp la. mooy la fait mu ne. association bu nekk dem leen ngeen tànn ngeen indi ma loolu de indi problème. Mhm. parce que tey jii gis nga loolu bu ñu ko defee pëccëxoo bi bëri na trop xeex yi bëri na trop bu njëkk ba xam nga ku war a fal. Mhm. falal. Mhm. nga wax ni kii laa fi teg quelque soit alpha acteurs yi daañu habitué liggéey ak moom parce que loolu lañu fi daan Alioune Sarr ñaata at nu ngi ko kaas. teewul ministre bu ñëw. ba ko fi président de la république bu ñëw ba ko fi. Hmm. donc njiit noonu lay doxee lii du fédération CNG hmm. la CNG nag ministre bi moo am habilité tànn ki mu fi teg léegi hmm. nag képp nag ñëpp unanimité mënul am. ministre bi su tàmmee ne kii laa fi teg pour mu liggéey pour mu jiite làmb c' sur que dina am ñoo xam ne d' accord nañu ak dina am ñoo xam ne d' accord nañu. mais mooy dañu jéem liggéey ak moom mais lii mu fi indi stratégie bi mu fi indi day gën a jaxasoo jaxase acteur làmb yi parce que tey jii man mosuma gis. Euh, président wu CNG bu ñuy tatab bu mu amee coow nii. daan am coow mais coow bu mel nii mosu fi am suñu demee bay xeex indi naa nañuy nañuy euh, maa ngi dégg père Moussa Fage keroog mu ne dañu sécuriser vote ban vote. Mm-hmm. vote amu fi. quel que soit alpha ministre moom mooy tànn léegi nag ku nekk nga tànn ku la neex nga indi mais ministre moom ce qui est sûr et certain. mooy jël dernière décision non ku mu tànn. Mm-hmm. fanaan nag moom moom bu pare. Mm-hmm. tànn na ko bu pare xëy na dafa bëgg xool. comment les acteurs vont réagir mais ministre moom xam na ku mu fay teg y a deux choses soit mu tegaat fi Bira pour un an wala mu changer indi fi Malick Ngom wala mu changer indi fi Bécaye parce que candidat yi aussi bëri na. Mhm. y a plusieurs candidats man ah, si sama gis-gis ministre bi waroon na tànn. parce que moom mu am habilité tànn da nga jàpp ne mënoon na tànn te mu bañ laaj. coow bi du bëree noonu coow bi coow bi du bëree noonu su fekkee ministre bi tànnoon na. coow bi dina am coow mais coow bi du yàggee nii xoolal làmb depuis ñaata semaine ñaata fan li ngi wax affaire kii mooy président kii dafi war a jóg kii mooy président mhm. dina am coow su fekkoon toog na mu tànn parce que bi ñu fi renouveler mandat wu Adji Sarr mhm. amoon na mhm. mais yàggul bu ngi fi indee Bira Sène coow amoon na mais yàggul mais xoola pëcc xoo bi xoola xuloo bi xoola xeex bi xoola waxante bi ñaaw bi loolu loolu lan moo ko fi jaar te ñoom dañuy xëccoo loo xam ne nee ñoo amul xaalis léegi lan moo tax léegi ñu si reyante Mm-hmm. amul sens à mon avis. Mm-hmm. moom daal léegi après dañ ko def mu rafet. Mm-hmm. ministre daal. mais lii yëpp mën ko éviter mu tànn ku muy tànn mu liggéey. mais la mais waa làmb aussi ñooy insister chaque jour naan war ñu ñu tànnal ñoo war a tànnal suñu bopp est que du wax yooyu la dégg moo tax. mais est am nañ si xoola boobu léegi ministre bi mu lay waxee tànn leen est-ce que coow bi dafa wàññeeku. coow bi dafa gën a bëri. dafa yokk xoola xeex bi xoola xulo bi xoola xasante bi xoola saagante bi xoola waxante bi ñaaw ay mag. loo xam ne nga ne bénévolat la. Mm-hmm. mais daf ko jarul jaru ko. jaru ko ministre war tànn daal nit ñi coow ko benn fan ñaari fan ku nekk dem continuer def sa liggéey. Mm-hmm. mais làmb ji est-ce que mun a dox instant bi nii munul dox. ndax lan xamugun ku ñu fiy teg. Mm-hmm. te ñàkk xam boobu ñu fiy teg xamal tey ji ministre bi tey su fekkee dafa reconduire ki nga xam ne mooy Bira Sène. teel a coow bi gën a bëri. su fi indee tey maaligom coow bi day gën a bëri parce que beneen camp bi dañuy wax duñu liggéey ak moom beneen institut maanaam day gën a jaxasoo doole si li mu jaxasoo woon bu pare. voilà. Euh, El Amine waaw gis-gis bon man duma bokk gis-gis nag ak Ndeye Comba parce que dama jàpp ne ministre bi euh, dafa jàngat bu ba bu baax a baax li nga xamante ne mooy monde làmb balaa muy jël décision woo leen déglu leen ne leen dama bëgg ngeen choisir ki ngeen ki ngeen bëgg mu fàllu comme nekk présidence CNG. Mm-hmm, mm-hmm. parce que quoi qu'on puisse dire ministre bi nga xamante ne nii mooy Khady Diène Gaye yàgg na ci mbirum ci wàllum sport. Mm-hmm. depuis des années mu ngi liggéey ministère des sports. donc yàgg na ci ci ci wàllum sport xam na peut-être waa monde làmb ñoo ko xamul mais moom xam na leen. yàgg na leen jàng yàgg na leen étudier. Mm. te tey man jàpp naa ne ñoom mouvance bi ñu nekk dañu bëgg gën a professionnaliser sport yi nekk Sénégal yëpp. Mm. rawatina làmb mu gis ne tey làmb war na mën a dem vers une fédération. Mm-hmm. mais pour que làmb dem vers une fédération il faut mu commencer. teg ay jalon jalon yi mu teg wala pas bi mu njëkk teg mooy fédération tey boo koy boo koy taxawal nga war a fal un président acteurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir ñoo ko war a fal du ministre moo ko war a fal du état moo ko war a fal du kenn moo ko war a fal acteur yi ko sekk ñoo ko war a fal moo tax mu teg benn jalon mu ne na acteurs yi décider wax seen biir ñoom kan la ñu bëgg mu nekk président CNG euh, bi mm-hmm. tey pour man loolu pas la boo xamante ne nii loi làmb dañ ko war a jël positivement jëm vers une fédération. parce que tey bu ñu bëggee làmb gën a professionnaliser gën a nekk loo xamante ne nii lu gën a organiser la war nañu mën a choisiral seen bopp ki nga xamante ne nii moom mooy président CNG. parce que depuis des années Alioune Sarr Bira Sène hmm. ñoom ñëpp état moo leen daan choisir. moo leen fi daan teg. donc bu amee benn benn benn nguur bu ñëw ne dama bëgg ngeen choisir. ral seen bopp ku ci nekk indi sa candidat indi sa profil après ñoom ñu xool pour man loolu pas la pour ñu jëm ci fédération. pour man pas loolu pas bu rëy la sax pour que làmb jëm ci vers une fédération parce que tey man je trouve pas normal ay discipline yu mel ni karaté judo yeneen discipline yu bëri fii Sénégal di nekk fédération làmb des ci CNG ba léegi. te làmb ëpp leen doole fii ci réew mi nekk lu ñu naan sport roi tey làmb bokk mooy sport bi gën a populaire ci Sénégal. Mm, mm. tey combat bu amee gis nga stade nu mu mel. si tey kon dafa jot làmb gën a wu. Hmm. pour man ministre bi dafa lancé appel sax ñi nga xam ne mooy waa monde làmb pour que. agsi na fay say facture local la ñun ñoo moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko